téere bi mi ngi nekkee ci réewum Côte d'Ivoire ci capitale ba nga xam ne moom moo di Yamoussoukro mi ngi toll ci hectare hectares 200 taalibe Serigne Touba bu ñuy wax Cheikh Gueye Mangone di doomu El Hadji Mangone Gueye mi nga xam ne nekkoon na représentant xalifa général des Mourides ci réewum Côte d'Ivoire doomam bi moom moo ko jël jébbal ko xalifa général de Mourides muy terrain bi daal di koy def àddiya lu ne mel nag def na ko depuis atum mille 2018 ginnaaw bi ñu jébbal mboolem kayit yi ki nga xam ne moom moo di Serigne Mountakha Mbacké Bachir jëf ji nag rëy lool Serigne Mountakha Mbacké Bachir rafetlu ko ginaaw bu fa Serigne Issakha Mbacké moom Serigne basiru demee nemmeeku terrain bi ki nga xam ne moom moo di Serigne Ahmadou Kara moom Serigne Moustapha Bassirou ànd nag jëwriñ yi nga xam ne dañoo nekkee ci réewum Côte d'Ivoire ak ki nga xam ne moo teewal xalif général des Mourides ca Yamoussoukro di Macoumba Thiam ñoom ñëpp ñu dem daal di nemmeeku terrain bi ngir liggéey bu njëkk bi nga xam ne def nañ ko fa muy dindi mboolem garab yi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi ak ñax yi loole nag am liggéey bu am solo boo xam ne taalibe yi nekk ci Côte d'Ivoire def nañ ko muy dajale lu toll ci ñetti million ak téeméeri junni di million cinq cent mille francs CFA ngir ñu financer li nga xam ne moo jëmoon ci jële fa garab yi ak bay ñax yi di liggéey bu am solo boo xam ne taalibe yi def nañ ko terrain bi nag mi ngi nekkee ci capital bi nga xam ne moo di Yamoussoukro di capitale administrative bu Côte d'Ivoire ci lotissement boo xam ne ñu ngi ko tuddee Kakumeno di bërëb boo xam ne état bu Côte d'Ivoire dafa am ay projets yu yaato yaatu yoo xam ne daf ko fa bëgg a def. fii ci Yamoussoukro ba léegi am na hectares yu bëri yoo xamante ni nguur gi jël na ko jébbal ko réew yi nga xam ne am nañ fa ay ambassade ci Côte d'Ivoire ngir ñu def fa ay ambassades yu yees. loole di yéene réewum Côte d'Ivoire ngir capitale bi nga xam ne moom moo di Yamoussoukro mu gën koo dëggal def ko capitale administrative bu réewum Côte d'Ivoire terrain bu yaatu bi nga xam ne nag jëbbal nañ ko xalifa général des mourides yéenëb Serigne Mountakha Mbacké Bachir mooy mu def fa benn institut di bërëb boo xam ne dañ fay sàkkoo xam-xam ngir mbooleem ñi nga xam ne ay jullit lañ ay taalibe te nekkee ci réewum Côte d'Ivoire mën di ñëw ci bërëb boobu di fa sàkku mboolem xam-xam bi nga xam ne dañ koy yittewoo te mu jëm ci lislaam projet bi nag am solo gum am solo tax na ba sëriñ Ahmadou Kara moom sëriñ Moustapha Bassirou bi mu ñëw àndoon nag imaam yi ginnaaw jëwrin yi nga xam ne moom lañ lim sànq ngir ñoom ñëpp ñu mën a nemmeeku li nga xam ne moo jëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene naal ci réewum Côte d'Ivoire. liggéey bi nag mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Côte d'Ivoire fas yéene nañ ko ànd ak xalifu général de des seriñ Serigne Mountakha Mbacké Bachir loole nag wane nañ ko ci ndorteel liggéey bi muy premier phase bi nga xam ne moom lañ njëkk a def muy bay ñax yi jëlee fa mbooleem garab yi nga xam ne nekkoon nañ ci 5 hectares 200 yi loole taalibe yi dajale lu toll ci ñetti millions yu teg ngir tàmbalee ko liggéey bi. ci nemmeeku gi nag mbooleem jëwriñ yi nga xam ne daje nañ fa ak sëriñ Ahmadou Kara moom sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou yëkkati nañ fa ay kàddu yu am solo ñoom ñëpp kenn ku ci nekk santaat bu baax gërëm taxawaayub Cheikh Gueye mi nga xam ne moo joxe bi le terrain waaye it gën a soññaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ak taxawaay bi nga xam ne moom lañ fa yéene am ci naalub Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke Bachir ci lim bëgg a def ci bile terrain muy institut boo xam ne bërëbu jàngukaay lay doon